marabiu xayri nnaasi wannuur yaxdaw fa alqada aslaaha wastaqarrat biannawa wa nilti lmuna ma baalu ayniki tadmaw laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah Qur'ani la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع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 رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد واقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر أربع مكي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 أعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلام لقاء كحسب الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفه السلام عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجعه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 laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah rasulullah ñu koy def xam na waaye nag benn wax bi wax ñi ko xam ne bëgg na ko wax na si ko bëgg xale la waaye nag gis nañ coordination bi jéem bi nga xamante ni moom mooy ci sëñ yi tabibi qarib hal siqami tasma yuqabiluni yawm al muqaffa al mushaffa أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما yàlla suñu borom comme ni mu ko waxee ci lépp nii la ko naan محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله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 وكذا بالمصاب بخيف وبشار بيار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي بي أتمتع محمد عبد الله راقبا بحب الإمام الهاشمي تشبه عليك أمين الله ناصر حامدا بشير مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أتمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ وقصني بحبل الله ñi ñi raam yi di euh, jëbal seen jaar nga xam عليك صلاة الله ثم السلام فإن فؤادي عندك الظهر أجمع عليك الصلاة ثم السلام أعيش بدون الحب فيك منجم عليك صلاة الله ثم سلام لقاؤك حسب الدير للقلب منجع ويومك ألف naan bu dul yàlla dafa naan dafa naan. soo ko koy loolu mooy jàpp. alayka salaatu llahi salaam ala rasulillah alayka salaatu llahi summa salaam wa an ba'da daa kullihi sawfa 544 président Bakhoum 540 المصطفى القرم يرفع عليك صلاة الله ثم سلامه مقامك محمود لدى الحشر تشفع لا إله إلا الله لا إله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 ah li waraloon suñu teewaay eh, suñu mbokkum taalibe suñu xarit di l'international Cheikh Kouyaté mi ñàkk way juróom bu góor moom nag dafa suñu diggante moom dafa yàgg moo tax jiitu na yi yëpp waaw ah, di di di suñu xarit waaw ah, ñuy demalanteeg fekkalante bu ñëwee Dakar di teew ba sama kër ñuy waxtaan am na weeru koor woo xam ne wax dëgg yàlla mën naa ne genn genn wàllu weeru koor gépp sama kër la doon nekk guddi gi ah, mu nekk suñu xarit di suñu wóllëre ñu yàgg seq jàmm lu muy def boole ñu ci lu muy dugg yëgal ñu ko lu muy sumb mbaa lu muy initier boole ñu ci kon nag bu amee lu mel ni dal ci kawam ah li nu war mooy teew fi jaale ko ay mbokkam masawu ko bokk ak moom ci luy nuru naqar ndax sunu borom moom wax dëgg yàlla dee la njëkk bind ci dund kon nag dañ ko dul miis rek dañ ko dul miin waaye nag du jaas ci kenn kon nag ñu ngi koy ñaanal yan bi oyof ci moom ndax kat dañ ne dañ ne mooy biddéewu njaboot ji waaw te boo doonee biddéewu njaboot gi moom maanaam coono yi day bari waaw ah, te bu ne gis ngeen ci lim nekkoon nekk ci Coupe d'Afrique wax dëgg yàlla dagg ko ñëw ngir lii ndax nit amul lu dul way juram ñu ko ba dañ ne peccum liir bu neexee nday jaatee ca wag ya kon bu duloon way juram moom fii mu agsi fi ex kon nag yàlla na ak ni ko fédération bi mayee mu ñëw ah delloo way juram ca boromam doog a delluwaat ci yitteem ndax euh, fii nu fi dañuy root rek bu sandaal fees rek nga ñibbi. bu sa waajur góor tam boo ko euh, xanaa mu delloo euh, xelam ci sunu borom rek ndax sunu borom mi nga xamante ne bii moom moom way juróom ama Cheikh moomul way juróom daa jaar ci moom hmm? jaar ci way juróom mu jigéen ñaari góor seq amoon nañ complicité nag ba meloon ni ay magarak mba ay moroom ñëpp gis nañ ci ñëpp gis nañ ko ñun it xamoon nañ ko ndax xamoon nañ way juram miinoon nañ min nañ ay mbokkam ndax li ma wax sànq rek ci demalanteeg fekkalanteeg waaye nag bu delloo xel ci sunu borom bàyyi xel ki ki nga xamante ni moom la moom la nu sunu borom royloo mu yonente bi sallallahu alayhi fi mu jaar ak ni nga xamante ne bi nii muñ na ko ci muñ gu rafet moom ab julit la kon gëm nañ ni loolu du du metti ci moom ku ñàkk way jur nag dina metti muy bu góor muy bu jigéen waaye nag boo dëgërloo doyloo sunu borom sunu borom moom li ñu naan turu bi ngay am ci sa ci sa ci sa xol mbaa ci sa yaram sunu borom moo la koy fàttal waaw yaa ngi koy ci wàllu jikkoom nekk la ci gën a màtte ak ak ak mhm. <laughs> ba mel ni ku naqari deret mhm. wax dëgg yàlla waaye fonk li muy def fonk liggéeyam mhm. waaw li tax mu daan critiquer lu bari dafa bëggoon lu parfait rek donte lu parfait moom amul sax suñu borom rek a parfait waaye moom bëggoon ku nekk di euh, nit ku nekk ca la ngay yëngu rek moom day bëgg nga cee redoubler effort moo tax bu ñëpp ne baax na sax moom mu indi la critique ndax critique day day baax ci doomu aadama ndax day day day dolli doomu adama kon moom euh, ni mu bëggee woon xale yi ah fonkoon doomu aadama fonkoon liggéey ak sincère loolu la nga xamoon ci ay jikkoom waaw te loolu gis nañ ni macha allah dal na njabootam. mu ñi mu ñi mu bokkal way jur jërë ngeen jëf ñu ngi c'est Serigne Abo Mbacké Thiam honorable député bokk parti démocratique sénégalais mais aussi nekk député wu Grand Yoff donc ñu wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et que bu ñu nekkee député Grand Yoff dëkk Grand Yoff aussi mu am ko koo xam ne aussi fierté wu Grand Yoff la di koo xam ne Grand Yoff da koy sagoo muy Cheikhou Kouyaté waajuram bu góor génn àdduna day rafet aussi ñu ñëw teew fi andi li nga xam ne moo nekk suñu njaal mais aussi andi li nga xam ne moo nekk njaalu le président Abdoulaye Wade ak aussi suñu candidat Karim Meïssa Wade ak njaalu Grand Yoff yëpp parce que ñun ñoo yor baatu Grand Yoff parce que ñun ñooy waxal Grand Yoff fi nga xam ne moo nekk pencum ndaw réew mi loolu moo nekkoon euh, tànk yi ak li ñu fi indi woon di ñaanal ki nga xam ne jóge na fi yàlla na ko yàlla suñu borom yërëm te xare ko àjjana fi daw si ñi fi bàyyi gën fee yàgg di ko ñaanal. ñëpp ñëpp xamoon taxawaayam ci Grand Yoff rawatina xale yi euh, lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw euh, kilifa goon yoo xam ni dafa njabootu woon ñëpp. mais vrai que yàlla may na ko doom joo xam ni fépp lañ ko xam ci àdduna. waaye moom képp kuy doomi Grand Yoff rek daf la jàppee comme doomam yaatu nekkoon nit ku oyof donc yaataloon xale yëpp moo tax tey gis ngeen. ni waa Grand Yoff génnee gis ngeen ni doomi Grand Yoff yi génnee gis ngeen ni jeunes yi génnee au delà de Cheikhou Kouyaté mais aussi moom aussi jikkoom tax na ñëpp ñëw tey ànd ak ko ci li nga xam moo nekk këram bu mujj donc nit ku baax la woon te fi mu toll jëfam rek moo ko mën a fekk foofu nga xam ne foofu la nekk tey am nañ ci rafet nañ ci njortu kay di waxaat yàlla na ko yàlla suñu borom xale aljana fi daw si euh, ñëpp xam nañ ni Sénégal dafay football vendredi ak lii am al euh, moom Cheikhou Kouyaté ñu bàyyi ko mu ñëw donc mën nañ jàpp ni xale yi ajuma wala sax li des si kaan bi dañuy footballaale naxar bi. waaw parce que xam nga nag suñu borom moom moo yor ay mbiram moo yor waxtu wi moo yor heure bi moo xool nan la koy def te ñun ñëpp kenn xamul kañ nga fiy jóge yàlla def na Cheikhou mu nga ci kaan ba dem di défendre les couleurs yi nga xam ne moo ne couleuru Sénégal far yàlla naxar bi am ci diggante bi. ñëpp xam nañ diggante waajur ak doom te ñëpp xam nañ Cheikhou ni mu meloon ak papaam ak relation yu ñu am donc c'est tout à fait normal mu ñëw assister ki nga xam ne moo nekk waajuram ngir gunge ko ci këram gi nga xam ne moom moo nekk këram bu mujj donc li ñuy wax rek mooy euh, li nga xam ne moom lañ dem uti ji ca Côte d'Ivoire yàlla nañu ko yàlla suñu borom may mu nekk parce que moom aussi waajuram loolu bokkoon na ci li mu doon ñaanal seexu kay mu jël li nga xam ne moo nekk Coupe d'Afrique bi ko ñu ko jëlee woon donc xëy na tey du ko fekkee waaye dañuy sant yàlla suñu borom xam ne lu mu def rek loolu moo nekk na jërëjëf merci beaucoup moo tax ñu bàyyi suñuy cër yëpp jox ko nit ñi waaye amul dara lu ñu fiy wax wala lu ñu fa war a lu ñu fa war a lu famille bi mënul waaye ndax famille bi kese fi euh, jógee yóbbu ko moom kese même buñ ko mënee du teggin rafetuwul moo tax lépp dalawaat ko xam ne laa tux saa wala taat xamuñu fu fu mu tàmbalee xamuñu fu mu yem waaye bëgg nañ tamit képp kuñ kàddu nga tënk. kon ñu war a jël kàddu bari na li ñu war a wax bari na yitte yi bari na soxla yi bari na waaye yëpp bariwul te toogaay bi yàgg na démb ba léegi ñu fi métti kon nañuy tënk ku jël kàddu bu bari ba bari bu mu wees deux minutes ku mu jël kàddu nag na ñëw ba jox la kàddu su la su ma fi taxaw rek ne ñu mën jox keneen salaamaaleykum wa rahmatullah ñu tàmbalee si euh, njiitu chef Kouyaté waa fédération lépp julli li nga xam ne amoon na saraxu ñetti fan amoon na juróom mais léegi daa de dafa mel ñu jël sax moom mooy lépp tey lay ñu nit su génnee àddina bés bu njëkk ñaareelu fan ñetteelu fan mu commencé néew yi ñu ne kon nag nañ ko defal sarax ah, ndax commencé na néew yi ñeenteelu fan juróom fan juróom benn fan juróom ñaari fan mu néew ba mu set mu nañ ko saraxal juróom ñaari fan bi bënn na fuy njëkk bënn ci moom muy bënnee rek noonu di nekk ci moom di nekk ci sax yi ba ñu ko xoolee cent vingt quatre mille cinq cent cinquante huit téeméer ñaar fukk ak ñeenti junni sax juróom fukki sax ak juróom benn ak benn ah ñu ne sax yi nekk ci moom sax yi nekk ci moom ci yàpp bi ñu ci biir fes del ci biir bopp bi di lekk di lekk di lekk di lekk yaxi la ñu mënul lekk ak kawar bi ñu dem ba nga xam ne léegi nit ki jeex na ba nit ki jeexee ñoom ñuy lekkante seen biir ndax takk-takk nit ki ñuy lekkante seen biir ba ñu dem ba fanweeru fan fanu feer waat juróom-ñetti fan sax yëpp jeex benn bi jot a des nag léegi muy dem di dem di dem fanweeri fan juróom-ñeent muy wàññaatu xiif jàpp na ko mu tee mu ñeent fukki fan ñu ne comme que nag la doomu aadama arrêté baa ngi nii mais léegi ñëpp bàyyi nañ ko te xista bi ñu bëri tamit duñ ko xam ñu ko sax kon dem ji yàlla ko yàlla jéggal yërëm ko man ñi may ñaanal rek moo ñu fi teew ginnaaw bàyyi na ko kàddu bi incha allahu rabbi mbooloo yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla defal yow yàlla yàlla nangu seen ñaan yëpp waaye wallahi kontaan nañu daal gërëm nañ leen sant nañ leen salaamaaleykum. waaw dëgg dëgg alhamdulilah imam jëlal kàddu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله القائل في محكم تنزيله وقوله الحق خلق الموت والحياة li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa qala aydan wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi waljuu wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarati wa bashiri sabirin alladina ida asabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla la ñu jóge te ci yàlla la ñuy dellu ñu ngi masawu askanu Kuyaate gépp ci wàllu góor ak wàllu jigéen waaye jël masawu gi teg ko ci kilifa gi nga xamante ni moo jiite famille bi xaarul ba tey nag waaye jiitu na yii lu mu war a dox mbaa lu mu war wax mu taxaw jël suñu njaal ak suñu ñaan teg ko ci loxoom moo xam kan ak kan ak kan ñoo ko yelloo ci askan wi Cheikhou day dugg ci biir mu teg ko ci sa loxo ak jullit la bu dox ci diggam ak moroomam isa maata fatba janaazatahu loolu àq la bu dox ci suñuy diggante juróom benn la waaye benn boobu laa ciy jël bu yàlla dogalee kenn ci ñun wuyu ji boroomam wala kenn wuyule boroomam comme ni ñu ñàkkee suñu waajur tey ñu gunge ko jaamu yàlla yi damay laaj ci mbindeefu yàlla yi est-ce que am na benn bu ciy wuy ci boroomam bu weesoo nit ak jinne boo xam ne daañu organiser dañ daañu organiser funéraayam ku yor sa xaj bu deewee sànnil ngay wax ku yor sa mbaam bu deewee sànnil ngay wax waaye nit bu fi bawoo alquran ne summa amaatahu fa aqbarahu bu dee ne nañ ko suul loolu la alquran wax suñu way juri bàyyi koo fi démb doon boroomi bokk ñu bàyyi ba tey 10 heures mbokk yi taxaw taxawaay bu rafet xam nga lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam altine bi mu fi bawoo diggante 13 heures et quart jàpp 13 heures yéexe nañu denc dañu ko denc ba mu am ñetti fan laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana référence kenn la te mooy sallallahu alayhi wa sallam ñu baax ñu tedd mag ñi ci mi dama ni kooku la ñu jël teg ko ci seen kanam mu jaral leen jaay seen juddu jaay seen njaboot jaay seen alal lépp jënde ko yéen bi sallallahu alayhi wa damay laaj est-ce que yonent bi leen xanaa yonent bi fay na leen ba wis leen bu ñu bëggee yàlla fay ñu ci darajee sallallahu alayhi wa sallam ndax moom moo ñu ko wax moo ni ñu bu ngeen bëggee ma bëgg leen qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumul yuhbibkumullah yonent ko waxal gaa yi ni bëggee ma bëgg leen nañu la bëgg yow yonent bi di la teg la ngay référence loolu kese rek la ñu ci jotaay bi comme ni ko xaj Yuusu ubbee mooy bëgg lépp rafet te lépp rek kaddu yi comme ni ko ay Yuusu waxee lii yariñ ci biir uskuru mahaasina mawtaakum lu baax lu waay xam lu mu doon lu lu ne ci aji dem di nga seede ko lépp yàlla da koy takk def ko yiw sëmbatal ko ca bàmmeelam waa sëgëm wax ju baax ju rafet la ñuy ci bàmmeel waa mbokk yi qul wallaahu ahad est-ce que duñ ko sëmbatal ci bàmmeel laa ilaha illallah est ce que duñ ko sëmbatal ci bàmmeel damay laaj kese suuratu yaasiin est ce que duñ ko sëmbatal ci bàmmeel yëpp yàlla ko yàlla takk def ko yiw yonent bi moo ni yonent bi moo ni yonent bi moo ni man qaraa xarfan ku jàng benn xaraf xadis bi muttafaqun alayhi la mboolem ñuy solo xadis yi dëppoo nañ ci yonent bi nee na man qaraa xarfan ku jàng benn araf min kitaabillahi ci téere yàlla bi falahu xasana am nga ci jàng ji nga ko jàng benn yiw mu ne wal xasanatu bi ashra amsaaliha benn yiw woowu yàlla nee na yonent bi nee na dañu koy yon yàlla da koy def fukki yiw yonent bi ni laa aqulu alif laam miim xarfun waxuma alif laam miim xarf ndax alif laam miim baat la benn ngoog am nga fukk walaamun xarfun laam araf la ñaara ngoog am nga fukk muy ñaar fukk wa miimun xarfun miim xaraf la ñetta ngoogu am nga fanweer te fanweeru yàlla ak suñu fanweer du benn yàlla yàlla yërëmal ñu ak yéen. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.